ñu fas ne dalal laata loolu mbokk yi nga xam ne yéen ay teew teewlu nuyu nañ leen bu baax a baax foo leen mën ci nekk di leen ziar bu baax a baax di leen wax ne rek dellu si waat nañu ci seen émission préférée ànd ceeg yéen ci ñi nga xam ne rek bëgg nañoo dimbali ay nit waaye ànd ceeg ñoom ci nga xam ne rek mooy nekk ci euh, réew mi ak li ci xew ak euh, lii nga xam ne tey jii rek euh, mooy ñi ñu dalal muy euh, mouvement jeunes chrétiens engagés ñu génn tey nag fenn fu xaw a exceptionnel ndax nag dañ leen gis ñu nekk di def benn acte bu noble ñu foog ne nag ci acte boobu la ñu yem fekk am na leneen ak leneen ak leneen loo xam ne ñi ngi ci biir di ko ci def loo xam ne rek macha allah tey ci yooyu lañuy dem waxtaan ci ak ñoom à cœur ouvert muy ñi nga xam na rek ñoo nekk fii ci. Euh, fi nga xam ne mooy euh, Grand Yoff euh, di paroisse saint muy li nga xam ne rek ñoom ñoo ko door muy jeune chrétien engagé ñoom ngeen di gis yenn saay si li nga xam ne rek mooy maanaam décès bu amee si funérailles yi ñuy accompagner cortège yi eh, daal di def li nga xam ne rek mooy organisation bi di daw nekk ci tali bi muy benn gest bu noble boo xam ne euh, macha allah tey dinañu xool naka la demee loolu ak yeneen yi ci biir yëpp yi fi laxasu ci seen émission 7 voix du cœur euh, dalalaat leen jàmm kon nag euh, ñu dalal ki nga xam ne rek mooy ndaw mi ñuy fa yéene tontu tey ak ñi ngi ci fas yéene àndal ñuy ay naataangoom tur bi ak sant bi ñu daal di lay nuyu. salaamaaleykum maaleykum maa ngi tudd Laurent Mendy le chargé de la com du mouvement jeune chrétien engagé Symbole. Mhm. Euh, Laurent nuyu nañ la bu baax a baax euh, comme ni ma ko présenté rek ñoo ko déggandoo euh, man personnellement bi ma njëkkee gis li nga xam ne rek mooy seeni service Euh, maanaam j'étais bay dama dama affaire daf ma jaaxal euh, mu doonoon loo xam ne mbégte la euh, fierté la aussi ndax nag ay jeunes yoo xam ne rek comme ni ñu ko tuddee seen tour engagé pour nekk kenn koo xam ne dafa nekk ci nakar ndax nekk ci maanaam nakar weesuwul nga ñàkk kenn koo xam ne sa ñooñ la maanaam sa jegeñaale sa mbokk comme ci mënti doon ki ñëw taxawu la di la organiser ndax fu ay nit dajaloo muy ful rek da ngay gis ne désordre mun na fa am da ngay gis ne lu ne mun na fa am zizani mun na fa am lépp mun na fa am ba tax na rek ma bàyyi la euh, ginnaaw bi nga nuyoowee nga wax ñu loolu naka la demee laata ñooy dem ci yeneen ak yeneen activité ak euh, témoignage yu membres yi. bo dinaa sawar si répondre si question boobu boo gisee jeunesse jeune chrétien engagé mun naa ko tënk si deux points. Mhm. benn bi. mooy emplacement géographique bu nga xamante ni église bi moom la amee. gis nañ ko église bi mu ngi nii si kaw tali bi la nekk bon bu ñuy dee def suñuy mees dañuy am problème pour def mees yi parce que y aura trop de désordre d'or ak marchand ambulant yi ak musique bi et tout donc si kaw loolu noonu mu amoon ay jeunes yi nga xamante ne benn bande de copains ils étaient au nombre de huit ñoom yàlla da leen xiir Esprit Saint da leen xiir ñu gis ni lii nii. de empêcher gars yi def mees ñoom ñu réñoo ko ne ah bu heure mees jotatee dañuy ñëw fi dàq gars yi pour ñu may ñu benn deux heures de temps bi ñuy def mees noonu la commencé ba ñoom si biir loolu loolu mu commencé ñuy commencé def ay veillées veillées yi tout au début ñoom ñoo jëloon engagement di koy def mais gisoon nañu veillée amoon na benn apport bu nga xamante ne devanture église bi gars yi ñu fa doon lal. Mhm. te loolu noonu rafetuloon quoi. léegi curé bi encouragé leen si loolu loolu ñu koy nuyu au passage avec Alphonse Biram mm-hmm. Ndour mm-hmm. mu ngi léegi Gorée moom moo mm-hmm. nekkoon curé à son temps en 2017 en juillet 2017 ñu rafetlu bu baax apport am parce que jàppale na mouvement bi apport psychologique présence morale et tout Euh, ci loolu la ñuy dem ndax ni ñu ko waxee rek dama la doon bàyyi nga daal di nuyoo euh, daal di poser le décor euh, dem seeti kilifa googu nga xam ne rek liñ naan boo duggee ci kër da ngay jaar ci li nga xam ne mooy kilifa gi ba tax na noonu lañ ko defee dem waxtaan ak moom ci li nga xam ne rek mooy li ndawam yi di def muy jeune chrétien engagé. ñu dem seetaani ko daal di dellusiwaat léegi ci waxtaan bi sur la 7TV euh, muy euh, abbé Joseph Gningue la ñuy dem xool yi léegi léegi euh, laata ñuy dellusiwaat ak suñuy jeunes engagés léegi léegi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. maa ngi fi nag depuis l' année dernière octobre 2022 laa fi laa fi ñëw te bu ma fi ñëwee man dama leen fekk dama leen fekk ci seen association dama leen fekk ci seen organisation dama leen fekk ci seen détermination. maintenant sama warugar mooy ma accompagner leen ou alors ma intégrer groupe bi pour mën leen a gunge ma gën a xam ni ñu doon ci lu ñuy yëngu ak lu téye loolu yëpp wala pour que su ma mënee yeesal ma yeesal su ma mënee renforcer ma renforcer voilà donc euh, moo tax euh, voilà je suis avec eux quand le temps me le permet voilà pour essayer de marcher ensemble. mooy wax ci accompagnement bu ñuy accompagner les familles endeuillées ou les communautés ben di ko rafetlu c'est très émouvant bu ñu gisee des jeunes comme ça qui se donnent volontairement pour que euh, voilà pour que l'organisation donc lépp luy laal ci ci décès ci enterrement gën a yomb yomb ci ci famille bi nga xamante ne. dafa nekk dans la douleur et certainement ñoom wax nañ la ko xam ngeen dafa doon association boo xamante ne ben il n'y a am na am na ay musulmans qui sont euh, véritablement engagés te donc l'accompagnement que muy ci famille chrétienne mbaa famille musulmane ben détermination bi benn la te loolu ñoo ngi koy rafetlu du man dong mais foog naa ñu leen gis vraiment nekk na loo xamante ne euh, dañ koy rafetlu baax a baax suñu responsabilité nag nekk na en les accompagnant ñu mën leen a encourager davantage pour que aussi ben que les que d'autres jeunes qui sont là qui mmh. jeunes yoo xamante ne <laughs> ils n'ont pas peut-être euh, pas chose à faire eux ils ont quelque chose à faire ils travaillent ils étudient et tout ça donc qu'ils aient aussi cette fibre nga mën a rendre service waaw waaw nga mën a rendre service ki mu mënta doon nag le service là n'est pas choisi voilà ça vaut pour les chrétiens sa vaut pour les musulmans moi à chaque fois que je les vois chaque fois su ma leen dise ci yoon bi c'est quelque chose vraiment qui me qui me touche énormément oui ça me touche énormément parce que damay je me mets à la place de ces familles qui sont dans la souffrance qui sont dans le deuil xam nga boo nekkee ci souffrance nit ñoo wàllu si la à sa manière mais forcément ça te le cœur retient cela te maa ngi remercier ñëpp ñoo xamante ne ci yoon bi comprendre nañu leen te même peut-être même di leen faciliter ñoom service bu ñuy rendre remercier forcément la, la, la, police parce que ben voilà, la police aussi ben, peut-être même les, les, les, voilà, les accompagne dans ce service-là. Que ce soit aussi la gendarmerie, tu vois. Alors, euh, loolu moom foog naa euh, ça mérite d'être véritablement souligné ci yoon bi aussi parfois on rencontre euh, peut-être ay ay ay ay chauffeurs yoo xamante ne du ñu comprendre parfois dans l'empressement et tout cela oui oui ñoom parfois euh, dimanche dernier rek amoon nañu fii assemblée générale donc pour faire repasser en revue lépp lu ñu def ci ci at bi donc relancer aussi tous ces jeunes là faire revivre encore euh, les statuts et tout ça je sais que benn activité phare vraiment boo xamante ne isi y tiennent énormément mooy euh, mooy foog naa anniversaire bu ñuy bu ñuy organiser chaque année ça vraiment je pense c'est un moment sacré pour eux te boo gisee sax ñoom nu ñu koy organiser <laughs> da nga xam ne que moom ah, Ah, <laughs> bon, exactement. Anniversaire, anniversaire, anniversaire. Alors, euh, euh ça, c'est vraiment pour eux quelque chose de... Et pour nous. Parce qu'aussi, ben, on fait tout pour être là par la présence et tout ça. Parce que di ngeen permettre ñu ñu ñu leen xamut ñi seen ay ndaw di daw ci yoon bi comme ça voilà qui ils sont qu'est-ce qu'ils font pourquoi et comment. voilà c'est ça te foog naa loolu. liggéey bu am solo ngeen di def nii par votre présence. kon nag jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom abbé Joseph euh, Gningue euh, nekk curé bu saint kon nag euh, ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa gi waxtaan ak moom ci activité bi ba tey Laurent lan ngay àddu ci li mu wax. ah di rafetlu bu baax. confiance mu ñu renouveler parce que fii moom moo fi njiit bi ak bépp prêtre bu nga xamante ne mu ngi fi le vicaire et les deux autres prêtres ñu ngi leen di remercier bu baax. parce que moralement ñu ñuy jàppale bu baax te des fois comme ni mu ko waxee rek mu am li nga xamante ne gis na ko ci suñu fonctionnement mu woo ñu en interne wax ak ñun sensibiliser ñu ni ñu ah su ma sañoon nii la def te yaakaar naa bépp njit bu nga xamante ne am na bët wala oreille attentive si say doom rek yaakaar naa ni sa wargal yaa ngi koy def normal quoi. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yàlla sas euh, mission bu mu nekk nii yàlla jàppale ko si bu baax. ak bépp prêtre bu fi nekk. Euh, kon nag euh, dañuy dem tey rek ci li nga xam ne tey euh, mooy maanaam activité boobu nga xam ne moom moom la dindu comme ni ma ko waxee sànq rek bokk na ci li nga xam ne moom la ñu gën a gis ne nit ñi gën nañ ko ràññee léegi nii maa ngi dégg turu mouvement bi jeune chrétien engagé mais comme ni ko curé waxee dafa bëri ay musulmans fi nekk ñu engagé comme yéen. loolu naka la demee. pour côté intégration des musulmans comme nu mu ko waxee woon tantôt parmi les huit huit membres fondateur ya avait un musulman bu nga xamante ne mm. Pape Seck la tudd. nu mu tudd Pape Seck. ñu ngi koy nuyoo au passage. Mm-hmm. moom moo doon ànd ak groupe de huit personnes yooyu noonu. premier service. ah bokkoon ci na si veillé bokkoon na si kii ba service yi sur le terrain daan na ñëw. Mm-hmm. ñu ko siy remercier bu baax parce que mënoon na ne ah. man de bokkuma ci église bi xaw ma lu fa xew. Mhm. xaw ma mais defuloo noonu yëpp. Mhm. def na gis na ne li nga xamante ne injuste la côté heure bu nga xamante ne. prière la. waaw heure prière la mu ñëw jàpp si waaw ba tey jii nii ba tey jii nii moom mu ngi ciy jàpp malgré que temps mayetu ko mayetu ko mu ñëw comme ñun membre actif mais de loin mu ngi ñuy suivre mu ñuy encourager. Mhm. te tamit bu ñeneen ñi ñemee. yaa yaakaar naa moo leen dee quoi. Mhm. ok moom euh, ci moom la jóge euh, ñu gis rek euh, li nga xam ne loolu la prêtre junj sànq dinañu gis ne du ñëpp ñooy comprendre mouvement bi li ko tax a jóg fan la sosoo. ndax yenn saay ngeen am yenn jafe-jafe yi ci tali bi mais tey jii balaa ñoo ñëw ci loolu ku soxla service naka lay demee. côté service bi yàlla a fii daa am dañaa forme benn bureau daa am bu nga xamante ne si tête bi am na président vice président bu ñu fa jógee secrétaire adjoint am mhm. bu ñu fa jógee am na trésorier am na commissaire au man mi sama commission commission communication la am na mhm. tamit relation extérieure ba am na commission discipline mhm. boo xamante ne daa dañaa établir ay règlement bépp règlement ku ko jalgati rek commission discipline dal sa kaw am na sanction am na correction fraternelle ba exclusion am na donc mouvement bi daa organiser wu daa structuré wu ba nga xam ne ku nekk daa war a def li la war quoi. Euh, léegi ci loolu comme ni nga ko waxee rek bëri na euh, loo xam ne tey jii ñu ngi ko ci gis ba tax na ku ci nekk ak pàcc bi nga nekk ñu dem euh, seetaani benn témoignage daal di dellu soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ndax nag am na ñi nga xam ne rek ñi ngi ci mouvement bi ñoom it. Euh, actif lool euh, mu doon ñu engagé ba tax na dañ leen dem xool léegi léegi ñu dellu siwaat ci waxtaan bi ak Laurent euh, Laurent Gomissan Laurent Mendy léegi léegi lay doon sur la 7TV donc nu les filles concernant mouvement bi donc mun naa ne ñun a góor yi ñoo yem juste fan la ñu ëppalee juste daw sur le terrain mais concernant les décès yu ñuy def bon une fois sur église bi ñun jigéen ñi ñun nañu ser nañu gérer service d'ordre bi après service d'autre bi dinañ joxe concernant la quête après quête bi dañuy def benn aide d'honneur boo xamante ne pour mën a permettre y aura pas de bouchon quoi pour bu ñuy génnee corps bi pour mën ko dugal ci oto ci corbillard bi bi pour mën ko accompagner au cimetière donc au niveau du cimetière dañuy jéem a épauler les familles qui sont dans la difficulté quoi ñi nga xamante ni ñu ngi jooy donc boo xoolee ñun am na ñoo xamante ne jot nañ ci jàngu secourisme waa jigéen ñun boo xoolee bien vrai que xol la rek boo xoolee ñun boo xoolee ñu mouvement bi am na ñoo xamante ne def nañ ci guidisme comme muy toog def naa guidisme donc jàngal nañ ci yenn yoo xamante ni côté secourisme comment survenir la la personne qui a un besoin quoi comme par exemple yow bu la leeree ni kii mu ngi jooy jooy yi métti na balaa muy daanu jéem ko dem yëkkati xaw ko dëfal jàppale ko quoi au moins yow nga jéem ko génnee ci biti balaa muy egg suuf bu ma gën a marqué je dirais bien que ba ñu manqué suñu membres yi on naa deux membres yoo xamante ne décédé nañu dans le mouvement oui muy Sylvain ak Maria ñoo xamante ne ñoo defandoo mouvement bi bokk ci lépp nga xëy un bon matin bien vrai que il était malade comme boo xoolee ñun mouvement bi dañuy dox ci social képp koo xamante ne y a des difficultés ñun dinañ xool noo xamante ne mën nañ la ko jàppalee voilà mais jàppale bi nag du ñu ñëw ne carrément ñu ngi jàppale kii di ko siwal fépp non ci suuf lañ koy defee discrètement sans autant que ne ñenn ñi xam quoi bu ñu ŋaangul bës kii ne carrément ñi jàppale nañ leen li yëg lii kenn du ko xam donc lu ñuy wax rek mouvement bi ci social lay doxee loolu la nag boo xoolee bu dëj bi amee nag métti nañu donc du coup dem nañ ci gàlle bi jàppale famille bi bien vrai que su ñun la nekkoon si ñun la bokkoon donc dara lu am rek ci information foofu lay jàll ci groupe WhatsApp bi di gu métti woon nañ nekkoon nañ lu ñu métti loo xamante ne comme ni ma la ko waxee si ñun la bokk nga perdre koo xamante mun naa ne mouvement bi donc du ay xaritoog affaire yooyu. mun naa ne ñun ñëpp waa difficulté yi ñuy jànkantoor mooy des fois mun nga dem ci kër ay service yoo xamante ne gars yi dañuy ñëw ñun boo xoolee suñu liggéey xam nañ lan la yéen bu ngeen woowee nit yi rek pour ñu jàppale leen rek laisser les gens faire seen liggéey nu ñu koy defee mais des fois da ngay ñëw yenn famille ñeen la naan li yëg lii li yëg lii da gis ñoo nga xamante ne comme mënuñu contrôler wu. ñu commencé di budde mais du doon ñëpp da ngay gis ñenn ñi nga xamante ne xaw nañu am compréhension jéem leen ne carrément non garaawul garaawul nañu bàyyi mu jàll des fois am na service yoo xamante ne sax dañuy dem ba bëgg bàyyi ndax da ngay ñëw ñun lu ñu liggéey xam nañ ko woo ngeen nit pour ñu ñëw bàyyi leen les gens faire le travail comme il se doit boo ñëwee bëgg si jóge impliqué leneen rek mooy loolu tu la personne bon ci ay difficultés yoo xamante ne nekkul noonu lay liggéeyee. moment bi damay ñaan mu baax ke jëm kanam quoi. parce que boo xoolee mun naa ne nous sommes les pères fondateurs te boo xoolee paroisse yu bëri au niveau du Sénégal je dirais bien ñu ngi koy voilà yegg na ba Mbour donc ça c'est une fierté pour nous donc et di si encourager aussi yeneen jeunes chrétiens engagé ak yeneen paroisse yoo xamante ne amagul mu am fa. jërëjëf euh, comme ni nga ko waxee rek euh, gis ngeen ne euh, mi ngi noonu. du ay góor kese ñoo ci nekk ay jigéen aussi ñi ngi ci jigéen ñoo xam ne ñu engagé lañu tamit euh, comme rek euh, soxna si yi nga xam ne moom la ñu seetaan léegi ni mu ko waxee euh, Laurent ak jigéen ñi naka lay demee. jigéen ñi ñu leen sant bu baax parce que dans un premier temps ñëpp dañu ne li liggéey góor la parce que gars yi dañuy daw rek mais am na yeneen activités yi nga xamante ne ñu ngi koy def yu bokk ak activité bu nga xamante ne service day donc y a pas mal d'activités. dina am mouvement bi si objectif am participer aux activités décanales et paroissiales de l'église lépp li nga xamante ne église da koy organiser comme les Christ Roi clôture année pastorale et journée caritas yoo xamante ne am na entités yi nekk si biir église bi dañ koy organiser bu ñu solliciter mouvement bi dañ fiy ñëw dañ siy jàpp côté logistique bi pendant avant et après mm-hmm. côté logistique bi installation yi pendant dina am service d'ordre le jour ji après dina am désinstallation mooy lu jot a installé mhm. donc jigéen itam dañu si jàppale bu baax côté yooyu noonu. mi ngi naan ñoom lépp la ñuy def de comme yéen daw bi dong lañ dul def waaw daw bi waaw daw bi <laughs> en. daw ko daw bi lañ leen ëppalee quoi. Mhm. parce que da ngay xool même boo xoolee am na yenn photo yi nga xamante ne suñu nettoyage cimetière yi dina nekk liggéey boo xam ne dafa diis mooy désherbage cimetière jigéen dañuy ñëw te dimanche xam nañ ko jour repos la mais dimanche lay dee du tombé mais dañuy ñu ñëw jàpp si dimanche yooyu noonu jàppale ñu bu baax. Mm-hmm. liggéey bu ñu goree ñu gor ñu ramassé voilà maye ndox man daal en quelque sorte jigéen ñi waa seen liggéey fii moom. rëccu ñu lu ñu bokkee mouvement bi quoi. rëccuwoo leen euh, ñu gis ne mouvement bi mi ngi màgg ndànk-ndànk. Euh, Dakar mi ngi euh, ci paroisse yu bëri jamono ji law na ba yegg ba Mbour. lan ngay àddu ci loolu. ah loolu la ñuy sant yàlla bu baax parce en jotoon nañu gisanteeg euh, l'archevêque Adrien Adrien Sarr oui l'archevêque Adrien Sarr bu nga xamante ne daf ñu accueillir remercier ñu ci suñu engagement ba pare ñaax ñu mu ne buggoon na am comme objectif mouvement bi gën a law mm-hmm. te yaakaar naa ne lu mu ñu ñaan noonu yàlla exaucé na ko quoi mm-hmm. dañu toog en interne ci bureau bi président recevoir appel que daa am yeneen paroisse yi nga xam ne ñu bëgg a imiter donc par contre am na ñi nga xam ne jël nañu suñu tour tudd jeune chrétien engagé am ñoo xam ne dañaa jël beneen tour waaw comme am na trésor de MIPA mais en en grosso modo liggéey cristal moo ñu tax a jóg. Ah, liggéey benn la waaw benn la quoi. Mhm. tur yi mooy ute waaw tur yi ñoo ute mais ñu ngi siy sant yàlla bu baax. Mhm. te tamit ñu ngi leen di encourager si liggéey bi ñuy def parce que c' est pas du tout facile ñi def dara boo nee nit ki da ngaa baax rek yow yaa baax quoi. parce boo gis boo baaxuloon doo mun a xàmmee lu baax si nit ki quoi. Mm-hmm, mm-hmm. kooku ñoom bu ñu nee ñun liggéey bi ñuy def baax na en en grosso modo ñoom ñu ngi si yoon bi tamit quoi. parce que ñun lu ñuy def ñun loolu la ñuy def. ñu leen di remercier bu baax ci tur bu ñuy bu ñuy màggal. Mm-hmm. tur bu ñuy màggal parce que. simple ak jëf bi simple la woon. mais léegi am na parcelle am na Saint am na Géejawaay am na Wakaam ba Mbour. bam na ba ba Ziguinchor contacté nañ ñu en 2018. pour taxawal loolu noonu. mouvement bi am na 6 ans. am na léegi 6 ans ñu ngi si septième année bi. septième année. ngi ci septième année. en juillet la ñuy fekk septième année. ah. mu ngi septième année bi. juillet ngeen di am sept moom la anniversaire bi euh, curé di wax. waaw loolu naka lay dem. moo ci anniversaire bi mouvement bi dañu def mouvement non événementiel mouvement non événementiel maam du tëgg ay événement pour nga xam ne day indiwaat xaalis si anniversaire bi kese la ñuy defar benn 72 heures depuis. première année ba léegi 72 heures la format anniversaire bi. bon les vendredis dañuy def dañ koy ubbee ak mini veillée de prière bu ñu ko ubbee mini veillée le samedi activité bi di am matin day dee di doon activité sociale suñu première année dañu defoon euh, visite médicale deuxième année ñu def randonnée PDS. ah ci ngeen di def don de sang yeeg yooyu. waaw troisième année si lañ def don de sang. Hmm. quatrième année moo nekk anne corona bi cinquième année mu nekk don sa sang. Hmm. sixième bi. ñu réhabiliter la doon le sang hmm. donc maam en grosso modo pour les samedi matin activité sociale lay doon hmm. loo xamante ne dañ koy jagleel communauté Grand Yoff bi hmm. ak commune kii Sénégal population Sénégal euh, bu ñu ñëwee ci service yi euh, laata loolu dañuy dem seetaan ak témoignage daal del dellusiwaat léegi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. mën naa ne ci mbégte lañ koy dundee parce que mouvement bi lépp loo gis dafa am ci lu mu commencé euh, fu mu commencé mooy euh, ci alentour église bi parce que tey jii bu ñu bu ñu nee jeune chrétien engagé te bu ñu tëb rek mu nekk mouvement boo xam ne dafa jugee ci kaw rek daanu ci suuf dafa am fu mu commencé lan moo tax mu nekk jeune chrétien engagé lan moo tax ñu tuddee ko noonu ak lan moo ko waral Euh, mouvement bi mën naa ne nekkul mouvement boo xamante ne nekkul ci église la sokkeekoo ci mbedd bi la sokkeekoo li tax mu sokkeekoo ci mbedd bi ñun dañoo nekkoon ay jeunes catholiques yoo xamante ne daanuñu fréquenter église daanuñu fréquenter église dañ daan ñëw mees rek dem par rapport ak yeneen jeunes yi nga xamante ne dañuy passer majorité seen temps ci église bi ñun bokkuñu woon benn entité. ñëw mees ñibbi mais dafa am remarque boo xam ne dañ ko gisoon ci suñuy ñëw mees ñibbi maanaam mooy lan alentour mais alentour église yi munoo woon def mees normal parce que dafa amoon ay marchands ambulants yooyu noonu période korité bu ñëwee wala tabaski buy approché musique bi installation yooyu noonu pour nga def mees sax problème la parce que musique bi ngay gën a dégg que li prêtre bi di wax euh, ñu marchand ambulant yi jël miiru église yëpp daaj ko ay pont lon fa seeni yére di jaay un jour ñu ñëw di wax ak ñoom ci actes yi ñuy def parce que loolu nit ñi dañ dafa daan nit comme ni ko musulman yi di waxee doomu chrétien du coow doomu chrétien du du xuloo doomu chrétien du saaga mais lépp loo gis rek dafa am exception mën naa ne exception boobu ñun ci lañ bokk ñun dañuy xuloo dañuy xeex loolu moo andi lii tey parce que dañoo ñëw di wax ak ñoom mu demee neneen ñu xeex ak ñoom ñoom ñu résister ñu ne leen désormais doo dootoo leen fi lalati chaque jour ñu xeex ak ñoom chaque jour ñu xeex ak ñoom fii ba ñu mujj ak ñoom police bañ demee police ñu ne leen carrément lii ak lii moo ñu booleeg ñoom période boobu curé bi fi nekkoon Alphonse Birame Ndour mi ngi woon Rome responsable bi fi nekkoon woo ko expliqué ko bi mu ñëwee nag mu convoqué ñu bi mu ñu convoqué ñu expliqué ko moom dafa dëggu mu ne ñu carrément yéen amoo leen benn ndogal ci église bi parce que bokkoo leen ci benn entité am na loo xamante ne boo leen ko buggee bañ da ngeen di ñëw intégré ci église bi nekk fi. responsable bokk ci ay entité du nekk ci loo xamante ne walla genre yooyu léegi bi mu waxee loolu ñun ñu continuer ci noonu ñu waxtaan ak moom déggoo ci kàddu mais ba léegi intégré wu ñu benn mouvement dañuy ñëw jël suñu banc toog ci miiru église bi kenn du lal nit ñuy def mees ci jàmm ku taal sa musique ñu ne la nit ñi dañuy def mees may leen ñu musique may leen ñu def mees ba pare par la suite nag bi ñu demee noonu ñun ñun ñoo dem ba am sentiment ni lii war nañ ko def mouvement mm. parce que bu ñu abandonné rek après dañuy ñëwaat euh, acte bi ñuy def maanaam euh, dafa loo xamante ne ci benn enterrement la commencé ñun xam naa mën naa ne sax daw bi tëb ñu tëb rek xalaat ni dañoo war a daw dafa am suñu benn grand bu décédé woon fii période boobu nag mu tombé woon période bi ñuy toog fii bu mees amee ñu toog fii bañ ko taal musique beeg tere woon en ambulant yi lal ci miiru église bi décès bi nag xam boo nekkee nit koo xamante ne da nga siiw Grand Yoff sa décès day bëri nit décès bi nag bëri nit ba débordé euh, ça fait six ans en arrière léegi bi décès bi kiiwee noonu ñu nekk di defar tali bi pour oto yi mën a circuler bu baax yooyu noonu bi convoi bi génnee noonu corbillard bi génn comme tali bi dafa xat prévoir ñu daw ñu leen di gunge juste pour génnee leen marché bi noonu la ñu dawee ak ñoom di leen defaral tali bi ba mujj yegg Saint-Lazare ñu def ko benn enterrement mooy premier service bi après noonu lañ ko continuer def ko kooku mi ngi tudd Ambu Ambroise la tudd nekkoon euh, supporteru Grand Yoff ku ñëpp xam fii biir Grand Yoff waaw waaw depuis loor ci lañ ko commencé ñu def ko mouvement nag utal ko tour suñu benn copain bu daan nekk ak ñun fii Raza mi ngi tudd lii nu Mendy moo génnee tour bi tuddee ko jeune chrétien engagé man ma génnee devise mouvement bi parce que mouvement bi am na devise devise bi mu nekk dans l'honneur au service de l'église après ci lañ ko wutal ay kayit dem ministère de l'intérieur légaliser ko yëpp def formalité yëpp mu nekk mouvement boo xamante ne euh, ministère de l'intérieur reconnaître na ko jox ñu kayit signé tamponné tout. mouvement bi am na ay yi nga xam ne tant que bokkoo ci mënoo koo xam quoi dëgg la nit ñi dañuy gis ci tali bi souvent ci tali bi la ñuy ëpp yi nga xam ne foofu la ñuy gisee mais boo gisee suñu paroisse <clears throat> mouvement bi am na yi nga xam ne ne ay activités liturgiques yi nga xam ne ne loolu ci église bi la. ay formation la nga xam ne ñun nañ koy dañ koy am ak jeunes yi formation yi ne day tax yow nga xam sa ngëm di xam lan moo la andi si mouvement bi di xam paroisse bi nan lay doxalee activités yi di xam tey jii nii mouvement bi lu tax nga war fi ñëw yooyu ay activités liturgiques la ay formation yi nga xam ne dañ koy amee suñu biir waa dëgg la tali bi euh, ñu bëri moom la ñu xamee quoi en fait lu ñuy daw si tali bi dëgg la yomb na yombul mais ñu ngi def lu ñu mën parce que tey boo gisee ñuy daw si tali bi dëgg la ay cortège funèbre la ñuy yóbbu des fois dañuy solliciter si loolu dingeen ñu gis nag dëj bu amee ñuy daw dañuy woo dañuy ñëw rek tëb ñëw rek suñu bëgg-bëgg rek ni ñëw dañuy def service dëj waa dañuy woo mouvement bi am na numéro téléphone bi nga xam ne ne boo ko soxlaa moom ngay woo pour mu ñëw defal la service moo tax ngeen ñuy gis souvent ci ci dëj yi noonu lay demee quoi dëgg la des fois dinañu rencontrer ay difficultés ci tali bi yomb na parce que déjà mouvement bi dafa organisé wu. ñu gis ñuy daw ci tali bi mais tali bi nu ñu koy dawee daa am yoon du n'importe comment la ñuy dawee ci ci tali bi waaye effectivement en effet dëgg la ku nekk am na poste bu ngay jouer ci tali bi du n'importe comment nga war a dawee ci tali bi parce que tali dafa am yoon lu nekk ngi ci te ay risque la tamit li ngay wax noonu ku nekk. am na poste bu muy joué effectivement dañuy wootante da ngay gis ñu des fois ñu yor ay tëlk tëlku wëkk ay rajo yi nga xam ne moom la ñu mën a di communiquer ma ñëw si poste yi bu ñuy classé pour mën a yóbbu cortège bi da xam ne ne moom la ñuy wooyee tey sniper sniper moom mooy jiitu nekk si kanam ci kanam corbillard ci kanam mooy corbillard baa ngi nii moom moo nekk ci kanam corbillard bi a 50 mètres léegi flèche bi nag moom mooy nekk ci kanamu sniper bi flèche bi mooy jiitu ci kanam boo amee loolu nga am ñi nga xam ne ne ñoom ngay sécuriser corbillard bi alentour corbillard ils sont autour de quatre pono bu nekk day am jeunes yi nga xam ne ne quatre personnes yi xam ne ne ñoom ñoo fay taxaw boo jógee foofu noonu ñu ñëw si électron libre électron libre moom moo am droit waa électron libre moom rek moo am droit circuler ni ko neexee ci tali bi boo bokkee ci mouvement bi nga am dese euh, yow doo def service ñun mouvement bi moo lay ñëw defal service parce que yow mënoo am nakar ba pare ñëw tamit di def service ñu ñoo lay ñëw jaale defal la sa service comme ni nga ko bëggee comme ni ñu ko yàgg defalee ci yeneen bëj yi noonu la ñuy fonctionner ko waaw. waaw dëgg la man mii di wax ak yow sama papa wàññeeku na 2021 mouvement bi euh, man musuma musuma jooy dëj musuma jooy dëj mais moment boobu laa xam ne ne. dëgg-dëgg nga ñàkk say waajur métti na 2021 le 4 novembre sama papa wàññeeku ñu suul ko le 24 ñu suul ko le 24 benn samedi la tombé woon mouvement bi ñoo ma ñëw defal service musuma jooy dëj li mu leex nii sama xol laa koy tibbee jour laa soo ko jooy dëj xamul tax moo jooy dëgg la gën a métti amul si dëj gën a bees rek moo am mu maayo dañ ma taxaw côté côté bu ne mën naa ko waxee sampa ba muy entré hôpital ku nekk da lay woo message bi ñaanal paay pour mu jóg mais lu yàlla dogal rek yàlla bu soxlaa moom jàmmunu si dara pa paa bi si la wàññeekoo mouvement bi ñoo ñëw jël dëj bi en charge ak sama communauté fu ma dëkk fii Grand FMS voilà dëkk mouvement bi dañ lay andil chaise andi la li nga xam ne ne moom ngay soxla chaise yi ni ngay gis nii ñu ñoo ko mouvement yi moo ko moom jàppale ma si côté bi nga xam ne ne bon du ma jarul lépp quoi fait jàppale ma ci bépp côté bi nga xam ne tey jii man gis naa si sama bopp te xam ne ne fi ma bokk regretté wu ma ko mouvement bi taxoon na ma benn moment laa craqué mooy bañ dencee paay ba ñuy génn bi joxe condoléances si buntu cimetière bi ñoom ñoo mujjee joxe d'habitude noonu lay noonu lay fonctionner quoi dañuy bàyyi fidèles yi ñoom ñu njëkk a joxe condoléance pare les mouvements yi mooy mujjee jaale léegi moment ba ñuy jaale ku nekk ñëw di ma jaale moment boobu laa xam ne dëgg dëgg dëgg man ñi bàyyi ñu ma benn yoon te loolu moo marqué ci dëgg-dëgg ci mouvement te mënu moon téye samay rongoñ quoi en fait mënu samay rongoñ ba paa bi wàññeekoo ko ba nuñ koy yóbbee di ko denc dañ ma taxaw les moment bu ñuy génn nag sama rongoñ fa la tuuroo te moment boobu lañ ma doon jaale ñoom ñëpp ku nekk te bëri woon nañ ñëpp a ñëw ñëpp laa lay amul exception ñëpp a ñëw mouvement bi ñëpp a ñëw kenn desul léegi solidarité boobu noonu la loolu taxoon sama xol fees samay ronguñ tuuru. jërëjëf euh, di leen jaajëfal euh, kon nag euh, gis ngeen rek témoignage yi ba tey bu ci ñëw gën a am solo muy rek ñi nga xam ne tamit mooy membre yi muy jeunes engagés yi nga xam ne rek mooy jeunes chrétiens engagé yi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement bi. nga xam ne comme ni niñ ko waxee seen euh, activité doon activité bu noble ndax nag ay bénévole lañu yoo xam ne macha allah ñu ngi yëngu ci loo xam ne euh, ñi ngi koy defal jàngu ji waaye ñu ngi koy defal Sénégal lépp ndax. musulman comme chrétien ñëpp ci la ñu bokk pour yéen ñi nga xam ne yéen nañu dab ñu leen di fàttali seen émission 7 voix du cœur di wéy ba tey ñu ànd ak tey ñi nga xam ne rek mooy mouvement des jeunes chrétiens engagé muy euh, église Saint-Paul lañ nekk ni ci euh, paroisse Saint-Paul euh, ñëw nag seet si leen di waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne rek mooy seen i activité waaye nag li ci gën a am bët maanaam li nga xam ne moom la ci nit ñi gën xam mooy li nga xam ne rek euh, mooy euh, accompagnement bi ñuy accompagner famille endeuillée yi bu ñu amee li nga xam ne rek mooy décès maanaam euh, ànd ak ñoom ci li nga xam ne rek mooy cortège bi Euh, jëmaleek ñoom ba ci église bi jóge fii jëmaleeg ñoom ba ci li nga xam ne rek euh, mooy euh, Saint-Lazare wala fépp fu ñu leen mën ci denc mais i idem aussi pour les musulmans noonu tamit la ñuy def ak ñoom fu mu ci mënti doon rek ñu ànd ak ñoom ba ci jàkka ja jóge fa ànd ak ñoom fi ñuy denc muy mouvement boo xam ne ñëpp la fi nekkal il suffit juste nga woote ci numéro bi nga xam ne moom la ñuy joxe balaa ñoo teg laata loolu dañuy dem ci service bi ñëwaat pour nit ñi gën a xam affaire bi naka lay demee maa ngi gis ci léegi euh, ci vidéo yi yéen a ngi yor ay talk work di waxtaan di wax ku ci nekk di situer sa morom liggéey bi naka lay demee en amont. liggéey bi loo gis bu amul communication bu dem quoi. Hmm. mais tout au début on avait benn problème bu nga xam problème communication la mais par la grâce de Dieu ñu ngi sant suñu benn marraine bu tudd moment Poly. Hmm. dëkkee fii Grand Yoff dafa ñëwoon benn enterrement. mu gis liggéey bi gars yi di def mu gis daw bi yooyu et mu laaj ñu lan lañ joto soxla parce que loolu noonu dafa nekkoon urgence far yàlla yàlla indi ko si saa si mu jàppale ñu si ay tëlkuwóor mm-hmm. mu jëndal ñu quatre paires tëlkuwóor ñu ko si sant c'était en en 2017 mm-hmm. ñu ko si sant bu baax te depuis lors bu mu jàppee mouvement ba léegi bàyyil quoi donc liggéey bi nan lay demee côté communication maa ngi dégg Paul di wax ci premier service bi ngeen njëkk a def ak naka la demee premier service bi. premier service dafa amoon suñu benn grand. Mhm. dem si yàlla àmb yàlla na ko yàlla yërëm. xare mhm. xaree ko àjjana yërëm ñëpp ñu nga xam ne yàlla jëlee na leen fi. maanaam du lu ñu organisé. du lu ñu organisé c'est venu naturellement. c'est venu naturellement. Mhm. lu mu lay ne esprit saint leen bee leen xiir quoi parce que y avait trop de monde trop léegi une fois messe bi fii la woon. bu ñu defee messe moment bu ñu naroon dem cimetière. car dañaa euh, Ndiaga Ndiaye dañaa stationné un peu partout parce que y avait trop trop trop trop de monde. Mm-hmm. dëj boobu noonu bokk na si dëj yi nga xamante ne waaw cortège yi macha allah bëri woon na trop. Mm-hmm. léegi ñoom huit personnes yooyu doon veillé fii ci saa si kooku ñoom grand jege woon na leen te amoon na fu mu leen féete woon quoi nekkoon na mentor si ñoom ci saa si bëggoon nañu fluidifier trafic bi. pour nga xam ne ñu teel a dem cimetière. booy ñibbi si parce que c' était un soir. Mhm. benn quinze heures la woon mees bi après 16 heures 16 heures comme ça mees bi jeex gars yi jàpp si mu am ñoom ñu waxtaan seen biir naturellement mu am ñi nga xam ne ñoo jiitu pour xool yoon bi si kanam pour bu ko defee oto yi bu génnee. Mhm. mun leen yombal. Mhm. noonu lañ defee service bi naturellement ba réussir ko. si biir même semaine bi lu yàlla def mu amaat service mu amaat dëj. far mu fekk leen fi ñoom côté marchand ambulant ñoom ñu ñëwaat mais boobu dañaa sol ay gilet mm-hmm. bu ñu solee ay gilet gilet yi nga xamante ne fii lañ leen ko aale simple CDJ moo la ko aale mm-hmm. ay gilet si ko mag ñu def ñu def service bi service bu jaaraat yoon pour une première pour une deuxième pour une troisième après ñoom dañu toog ñu waxtaan si ne ah kooku dernièrement jot nañu def service bi léegi léegi nii est-ce que jotul bu service amee ñun ñu xool nan la ñuy ormalee loolu noonu pour mun a def service donc mouvement bi si loolu la si loolu la juddoo quoi. si loolu la juddoo si loolu la juddoo en mhm. quelque sorte. Euh, ñu gis ne musulman comme chrétien ñëpp a leen di sollicité ngeen ciy dox yan jafe-jafe ngeen di am. jafe-jafe yi ñuy am yu si bari mooy manque de compréhension bu nga xamante ne tout au début nag la ëppoon mais dernièrement ñu ngi sant yàlla bu baax comme mhm. curé nu mu ko waxee. Mhm. police ak gendarmerie dañu si jàppale parce que une fois ñu fekk leen sur le terrain gendarme bu monté buñ ko ñaanee. day bàyyi suñu oto romb quoi. Mhm. mais tout au début c'était trop difficile avec les taximans auto particulier du ñu comprendre quoi. Mhm. parce que ñu gis ñu daw arrêté leen mais du ñu comprendre mais au fur du temps ñun tamit ak suñuy réunion ñu nekk nan la ñuy def ba améliorer. Mhm. Euh, manquement yooyu noonu côté communication boo ñëwee minimum des choses da ngay ñaan taximan bi informer ko parce que du ñëpp ñooy xam. du ñëpp ñooy xam am na ñoo xamante ne. dañuy nekk si si sur le terrain. mais xamuñu mosuñu woon gis. des fois sax dañu doon romb. loolu loolu moo waral lii sax invitation bi ndax euh, ki nga xam ne mi ngi ci nakar ngeen taxaw ko jusqu'au bu dimbali ko ba mu denc ci jàmm nit ki reposé wu en paix euh, te ñu bëri xamuñu liggéey bi nga xam ne moom ngeen ciy def looloo waral 7TV ñëw seet si leen pour fësal ko. pour nit ñi gën ko xam mën ko comprendre ci circulation bi. <laughs> parce bu bu gaa yi amul information rek moo taxit ñu ngi sant yàlla bu baax depuis début ba léegi nii taximaan yi ñuy fekk si kaw tali bi parce que seen liggéey lañu nekk def te xam nañu Dakar dafa xat mm-hmm. te temps bi mayu ko des fois tamit si biir circulation doo xam kan moo si feebar doo xam kan mooy dem jëli urgence mm-hmm. mais njort bu rafet rek lañ koy defee parce que dañu bëgg a honorer euh, euh, personne bi nga xamante ne yàlla da ko fi jële mm-hmm. pour temps bi bi ñuy dem cimetière ak ñibbi si ñëpp mun na ñibbiwaat seen kër. si affaire bi dem cimetière la ñëw wala service ba ci condoléance yi da ciy bokk. ba ci condoléance. Mhm. une fois à l'église dañuy def cimetière moom mooy si une fois à l'église dañuy def service moom mooy service d'ordre bi fa lay commencé église église lay commencé dañuy def service d'ordre suñu jugee service d'ordre sur le terrain dañuy fluidifier yoon bi pour ñu mën a atteindre cimetière bu ñu yeggee cimetière dañuy defaat service parking pour gérer oto yi pour bu ko defee bu ñuy génn mu yomb. Mhm. si biir cimetière bi. dañuy def service côté secourisme parce que du ñàkk am ki nga xamante ne du du gëmee que nit ki dem na. Mhm. ba mu daanu. Mhm. léegi ñun dañuy jàpp si si lool noonu def service d'ordre def service euh, secourisme. Mhm. yëkkati ko jàppale ko pour mu retrouver waat jigéen ñi comme góor ñi jigéen ñi comme góor ñi. pour mu retrouver waat ay sens am. loolu mooy service d'assistance quoi. en quelque sorte. bu dee ci musulman yi aussi. musulman yi dañuy dugg si noonu lay demee aussi noonu lay du noonu lay demee. même bu ñu demee yoof d'habitude noonu lay demee tamit. Mm-hmm. dañuy dugg ba si biir bu amee ki nga xamante ne. Euh, dafa daan dafa sonn ñu jàppale ko pour mu mun a rejoindre maison mortière. bu ñu mm-hmm. yeggee une fois maison mortière dañuy def service su dañuy gérer rang yi pour bu ko defee mu gaaw quoi. Mm-hmm. parce que gisoon nañu am ñi nga xamante ne duñ dem cimetière duñ dem messe ñooñu ñooy gën a yàkkamti ñi nga xamante ne. ñoom ñoo nekk depuis ce matin ak famille bi. Mhm. mooy accompagner nañ leen si messe bi. dëgg la jugee mais ñooñu ñooy gën a yàqamti. Mhm. mais ñun loolu lañ koy bañ. une fois bu ñu ñëwee raay képp ki nga xamante ne da bëgg a te présenter condoléance amul maa xam Jean amul maa xam Paul da nga ñëw topp si raay nga ñëw présenter condoléance booy ñibbi nga ñibbi. Mhm. booy xaar sarax bi nga xaar sarax. waaw bu ñu jugee si condoléance après dañuy def service sur la euh, dañuy def service su séddale ñuy séddale sarax. ah da ngeen bokk ci séddale beeg yëpp ñuy séddale sarax. mais par contre raxas moom gars duñ ko def quoi. Mhm. raxas duñ ko def. Mhm. parce que temps bi duñu ko may. du la ko may te yenn saa yi nga am ñaari service ak yooyu. Mhm. yenn saa yi ñu am ñaari service yenn saa yi tamit mu am mu am ñi nga xamante ne dañuy liggéey dañuy wàcc rek ñëw rejoindre. kon kon ñu ci bëri ci yéen ñi dañuy jàng ñii dañuy liggéey. ñu bëri dañuy jàng ñi dañuy liggéey fii am na ay médecins fii am na ay étudiants fii am na ay am na ay corps de métier boo xalaat macha allah bu simple bu simple mi ngi ci au nombre de 300 wala. mi ngi ci au nombre de 300 300 me trompe wala 300. waaw parce que ñu ci bëri comme ni mu la koy waxee au fil du temps am na ay mariés. Mhm. ñoo xam ne seen temps du leen ko may. Mhm. ñuy assister service yi. Mhm. à temps plein mais ñooñu ñu ngi assister. Euh, à distance yeneen yeneen activités yu ñuy amal. comme des thé débats yi ñuy amal ñu ngi assister ay réunions. ñu ngi assister ay journées yi nga xamante ne. dañ koy dee di amal càndu comme seen jour de repos la ay dimanche mm-hmm. ñu ngi ñëw mm-hmm. comme ni mu la ko waxee woon tamit ay dimanche la euh, cimetière ñoom dañuy ñëw mm-hmm. moo tax ñu ne ñu ngi soo am nombre de trois cents ku ñu amee day off ñu ñëw moom ñoom it rejoindre li nga xam ne mooy euh, liggéey bi euh, muy lu am solo ba tax na dernier témoignage bi ñuy dem seeti euh, mooy li nga xam ne rek mooy gis nañ ko ñu dem xool ci jafe-jafe yi ñuy am ak seeni besoin léegi-léegi lay doon sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur mis à part activité funéraire yi mën naa ne jeune ci engagé au fait bu mu juddu c'était pas ça l'objectif activité funéraire yi après li soog a ñëw au fait mais waaw daf ñu dabu. bien moo ci gën a fës. waaw parce que ci bi la quoi milieu bi la donc euh, c'est c'est c'est essentiel déjà c'est très normal euh, li may wax mooy juste euh, mouvement bi à part activité funéraire yi amaan na yeneen activités yi muy def parce que lu fekk que ñuy rassembler juste les jeunes qui sont là suñuy frères ak suñuy sœurs mënuñu ñu rassembler juste pour des activités funéraire donc il y activité d'autres déjà par rapport ak seen ngëm-ngëm surtout. comme nous some au niveau de l'église donc ñu dañuy def en sorte ñoom déjà pour qu'ils puissent pour ñu xam ni que maanaam fii euh, jàngu mi law fekk dañoo ñëw déjà pour euh, gën a yokk suñu ngëm-ngëm surtout donc par rapport ak loolu dañuy dee def euh, très souvent ay enseignement am na yoo xam ne activités yoo xam ne si au sein de nous si suñu suñu biir ci boppam et enseignement ay comment dirais-je déjà ay te ay te ay te débat yoo xam ne on parle de la vie de l'église et tout maanaam des des activités exactement nettoyer cimetière dañ koy def don de sang aussi dañ koy def ay euh, comment dirais-je ay randonnée tamit dañ koy def Euh, Toussaint la mais des fois waaw chaque année mais parfois day am anticipation yoo xam dañuy anticiper dem nettoyer ko avant que Toussaint avant que ñëpp euh, di jot message pour euh, nettoyage yu cimetière yi bon service yu ñu jot a def yëpp. waaw <laughs> d'accord loolu dina dina dina xaw a jafe trop parce que tey jii nii dañoo toll foo xam ne mouvement jeune chrétien engagé mm-hmm. mën naa ne activité yëpp dañoo essentiel mm-hmm. parce que activité yëpp. dafa am fu ñuy regroupé woo man day regroupé si suñu vie fois foi boo ko jëlee si euh, service funèbre yi loolu maanaam boo amulee ngëm-ngëm maanaam doo ko def avec amour au fait mais ñun suñu activité ñu def yëpp dina am koo xam ne su koy def dina sentir boppam dina xam ne li may def nii dama koy def ak yëg-yëg parce que engagement moo koy permettre déjà lu fekk nga ñëw fii déjà sa ngëm-ngëm moo lay permettre nga ñëw fii wala nga ñëw pour mën a acquérir loolu noonu yaa Euh, par rapport activité funèbre yi mun naa ne bon da ah, dañuy ne dañuy ne waaw dañuy dañuy naan que moo gën a fës parce que mooy suñu activité maanaam activité bu gën a bu faat au fait boo xam ne à chaque fois dañ dañ dañ koy rendre service tu vois donc euh, loolu mun naa ne ñëpp la marqué parce que yombul au fait. waaw bi am na connaissance bi am na et mais am na leneen loo xam ne suñuy njiit église catholique dañuy faral di di di di ko wax à chaque fois muy dugg suñu nopp mooy le dialogue islamo-chrétien. donc ñu nekk nañu ay ndaw di dégg le dialogue islamo-chrétien dafa am importance donc lu fekk que déjà ñu ñëw ci église bi créer mouvement jeune chrétien engagé mënuñu permettre mënuñu mënuñu empêcher suñu frères musulmans yi gis lu rafet loolu noonu bëgg bokk. parce que lu fekk ñuy bokk ça veut pas dire a dañuy tub dañuy nekk chrétien mais dañuy bokk parce que dafa que dafa nekk loo xam ne engagement la fait engagement la pour yàlla yaa ngi comprendre comme ñëpp ñoo bokk benn yàlla bi donc geste de noblesse la loolu moo tax ñoom bu ñu ñëwee dañ leen yaatalal wan leen ni que fii ñi ñëpp a fi xaj daana nañu wax que question ngëm-ngëm amul amul amul amul kii quoi amul choix u fait fépp foo ko gisee da ngay dem barkeelu ci déjà balaa may wax lu may ñaan dafa am leen lu bëggoon préciser pour nit ñi xam ko mooy mouvement bi sànq manqué wu ñëpp la fi nekk la muy musulman muy chrétien lan moo tax gars yi di solliciter mouvement bi jeune chrétien yi nag bëri nañ trop. dañuy solicité mouvement bi ñu wax ñu heure décès bi ci mosquée bi à 17h wala 14h ñun dañu fay nekk avant loolu ñu gunge leen comme ni ñuy def ak église catholique noonu lañ defee ak suñuy frères euh, musulmans yi. Euh, li ma bëggoon préciser mooy que mouvement nga jeune chrétien engagé bëri nañ trop euh, macha allah. Eh, mais eh, gis nañ eh, ñu bari seetlu nañ ni que mouvement jeune chrétien engagé Saint-Paul de Grand-Yoff mu ëpp lu muy am service ñun ñu ëpp lu ñuy génn mën naa ne ci ci ci ci mouvement église yëpp lan moo waral loolu mooy juste que mouvement bi je tiens à préciser nekkul mouvement boo xam ne day fayeeku maanaam mouvement bi lépp lu muy def da koy def euh, dans le volontariat maanaam par amour bénévole quoi tu vois parce que objective bi de ça ñu jàppale ñoo xam ne ah dañuy am problème xëy na xooluñu au fait nga am xaalis wala nga bañ a am xaalis ñun ñëpp nañu yemale mouvement bi à chaque fois buy génn am service su fekkee dañuy génn église bi dañuy demander juste le transport maanaam suñu déplacement aller ak retour loolu kese dañuy demander pour famille yoo xam ne dañuy solliciter mais amul dara loo xam ne après après service bi dañ koy laaj famille bi amul maintenant c'est la famille nag parfois dañoo am famille yoo xam ne dañuy bëgg di di participer ci vie de mouvement bi bon ñu lay ñuy inciter jëlal loolu juste pour participation vie vie mouvement bi la mais mouvement bi noonu lay doxee on agit dans le dans le bénévole dans le volontariat pour ñëpp nag pour ñëpp nga am nga bañ a am nga siiwoo nga ñàkk siiw on est toujours là pour ñëpp. Euh, damay terminer juste li may ñaan pour jeunes chrétiens engagés moom laay ñaan pour mouvement jeunes chrétiens engagés yëpp au niveau du Sénégal parce que léegi c'est devenu national parce que église yëpp am nañ ko mooy que ñu am benn cohésion boo xam ne. ça sera une vie de famille entre les jeunes chrétiens engagés maanaam église yi jeunes chrétiens engagés yi mun na déggoo entre ñoom en ñun loolu mooy suñu mëbët bu njëkk sincèrement parlé te loolu laay ñaan loolu am. pour fépp en maanaam ñu déggoo mu benn collaboration boo xam ne dinañu mën a nekk comme euh, CVAV que dina métti trop wala mais sama mbëbët loolu la en fait man loolu laay ñaan à part loolu lu may ñaan mooy jeune chrétien engagé simple laaju ñu kenn xaalis laaju ñu kenn au fait ñun pour suñu am dara suñu amee dara sax pour ñu demander soutien yi ñett problème la si ñun problème la parce que ñun lu ñu génnee suñu xol au fait moo ñu ëppal importance mais parfois ça ne veut tamit que amuñu amuñu on a pas on n'a pas des problèmes on n'a pas des besoins on a des besoins au on a des problèmes et sincèrement parler bu fekkee dina am benn volontariat boo xam ne dina jógee ci biti pour ñëw si ñun ñun on accepte volontiers sincèrement parler parce que on a besoin d'aide parce que chaque fois dañuy dem service ñu ne ñu yéen da ngeen di à chaque fois da ngeen di daw da di daw ba cimetière xanaa vous n'avez pas des motos des scooters comme ça te pourtant soxla nañ ko mais on n'a pas les moyens d'en acheter bu fekkee daa am ay ay ay ay bonne volonté yoo xam ne mën nañu jàppale côté boobu ñu ñu jàppale ñu. ñu jàppale ñu bu baax par rapport déjà ak mouvement bi mouvement bi ñu ngi nekk au nombre de à peu près 300 cent membres macha allah. waaw 300 membres macha allah mais mouvement bi tey jii dañoo am problème xool état de santé membre bu nekk maanaam côté boobu noonu su fekkee am na ay médecins ñu mën a jàppale côté boobu noonu bëgg nañ ko trop. pour ñu xool euh, état de santé ku nekk parce que nit ki doo ñëw di ko defloo service à chaque fois te xamoo état de santé fu mu toll donc côté boobu noonu bëgg nañu jàppale ñun trop ak leneen ak leneen loo xam ne nit ñi mun nañ jàppale mouvement jeune chrétien engagé rek nañ si jàpp parce que on a besoin d'aide vraiment on a besoin de soutien de tout le monde nag. merci beaucoup euh, ñu koy jaajëfal moom Dieudonné Dagoya euh, gis ngeen ko comme ni mu ko waxee rek euh, du ñàkk du ñàkk ndax jafe-jafe yi nag ku xool liggéey bi. xarañceer teef bi ci nekk nga xam ne jafe-jafe du ñàkk te nga xam ne soxla nañu euh, maanaam ku leen soutenir euh, wootewuñu ndimbal nag benn yoon euh, dañ koy leeral li ñu tax a déplacé wu mooy nit ñi xam lan mooy mouvement bi lan moo ko tax a jóg ndax nag bu dul dara sax ku xam jàngu bi xam ne muy fonctionner xam li nga xam ne moo ne ci biir te xam ne tamit tàllal loxo doo ko ci faral di gis ba tax na jëdoone ni mu ko waxee mooy maanaam ñoom Euh, difficulté yi ñuy am ci seen biir liggéey ku leen ci bëgg a dimbale nag euh, ubbil nañ la bunt mun nga leen ci jàppale ndax euh, li ñuy wax ak c'est des bénévoles ñii ay enseignants lañu ñii ay médecins lañu ñii am nañu seeni activités yoo xam ne moom la ñuy def waaye nag dañoo jóge fee ñëw bokk ci li nga xam ne rek mooy mouvement bi pour jàppale Sénégal yëpp ndax musulman chrétien ñëpp ñi ngi ci biir. ba tax na yow it mi nga xam ne yaay seetaan boo ci buggee dugal sa <laughs> tijjil <laughs> nañ la loxo yi du noonu jëdoone kon nag euh, ñu dem euh, rek euh, tontu ki nga xam bàyyi ki nga xam ne mooy Laurent mu daal di àddu ci li nga xam ne rek moom la ne wax waaw loolu moom dañ koy dañ ci rafetlu bu baax mhm. parce que des fois nga am problème bu nga xamante ne comme ni ma ko waxee ak tël ku wookee des fois ñu am problème ak gilet yi si scooter yeeg moyen de transport si saa si yàlla indi kenn mu mhm. jàppale ñu si loolu mhm. ñu ngi sant yàlla bu baax parce que lu ñuy def nii am na ñi nga xam ne da leen touché quoi. Mm-hmm. les cœurs sensibles ñu leen di remercier parce que ñu ngi gis encouragement yi fépp quoi. Mm-hmm. te loolu noonu yombul quoi. Mm-hmm. képp ki nga xamante ne mu ngi ñuy ñaanal rek yàlla na ko yàlla defal li gën. képp ki nga xamante ne mu ngi ñuy soutenir de près ou de loin rek ñu ngi lay sant yàlla. ñu ngi lay ñu ñaanal yàlla ko euh, lan nga ñu mën a nettali comme anecdote loo leen mën a mos a dund loo leen mos a nit ku leen gis kontaan ci affaire bi geste bi euh, lenn loo leen ñu mën a expliquer rek loo xam ne dund ngeen ko lu émouvant ci euh, seen liggéey bi. bon man sama anecdote moom. période hivernale la woon. dañ mhm. amoon trois service macha allah gars yi ak taw bi ak maam équipement yi. parce que fii nu mu la koy waxee bénévole la. képp fii boo fi ñëwee boo defee service boo ñibbi duñ la jox dara nga yóbbaale. lépp la ngay def ngir yàlla. donc gars yi ak seen téléphone yi matériels yi daal yi bees yi yëre yi yëpp gars yi xooluñu si loolu quoi dugg nañ si ndox bi doo gis koo xam ne day esquiver ndox bi matin comme soir jour dafa taw matin comme soir. ñu def service bi Saint-Pierre mu am ñi nga xam ne ñoo desoon martyr. trois services la ñu amoon dañu scinder groupe bi en deux beneen service bi ñu ngi koy amaat le soir martyr ñu pare fële ñooñu tamit ñibbiwuñu ñu rejoindre ñu martyr mu nekk ay moments yi nga xamante ne retrouvaille bi période yu gars yi ñëwee période boobu dañaa bàyyi foofu noonu sarax gars yi añuñu mais gars yi dañu rejoindre sur le champ ku nekk xoolante gars yi ne lii nii am na ñoo xam ne bu doon weeru koor sax duñu wóor mais li mu nekk euh, def ngir yàlla. Mhm. amul boobu noonu gars yi coono boobu noonu yëguñu ko quoi. Mhm. parce que man j'étais présent. Mhm. gisoon naa gisoon naa fi nga xam samay rakk la gis naa fi samay mag mais kenn kaasu mu nekk affaire bu nga xam ne daf ma touché. quoi ils se sont donnés à fond. loo xam ne dañ ko def noonu rek yàlla tax. dañ ci def ko ngir yàlla. bés boobu da la marqué. macha allah gars yi def service bi comme nu mu ko comme. comme pas possible. parce que taw bi nu mu tayee matin comme soir. soir bi amoon nañu difficulté bu énorme côté ndox bi parce que ndox bi bëri woon na trop mais macha allah jàllale nañu service bi comme nu mu ko waree macha allah ñëpp après ñëpp ñibbi nañ seen kër. Mhm. le deme tamit amoon nañu service mais kenn bàyyiwul quoi. Mhm. loolu noonu marqué woon na ma trop. le chemin continue. waaw ah, noonu la demee kon nag euh, dañ lay bàyyi rek nga daal di euh, tënk daal di tàggoo laata loolu bu dee am na lu ma la laajul loo bëgg a wax. wala euh, bu dee tey ji wala ñu dem ci rendre hommage seen ñaari membre yooyu nga xam ne comme soxna si ni mu ko waxee rek ci la ñu bokkoon ci chemin bi en cours de route suñu borom euh, daal di rek euh, jël leen ma bàyyi la rek nga wax ñu yow tamit personnellement naka nga dundee loolu bu dee fekkee nga ko bon côté suñu ñaari membre yi dem ñett lañ sax Sylvain ñett lañ Sylvain Kadiona mhm. Maria Diatta ak euh, Alexandre duuma mm-hmm. ak euh, Nathalie kat lañ ak Nathalie Mendy yi nga xam ne yàlla da fi jële ñu leen di ñaanal yàlla yàlla fay leen seen xol mm-hmm. yàlla fay leen lu ñu nga xam ne jot nañ ko liggéey ak témoignage yi ñu a jët seen jour enterrement mm-hmm. mu nekkoon ay ndaw yi nga xamante ne macha allah il étaient engagés au sein de l'église ba yàlla jël leen fii nii di ñaanal tamit seen famille yàlla yàlla may leen xolu muñ may leen xolu mais métti na trop Laurent ngay def service si koo xam ne peut-être yéen a doon defandoo service gisatoo ko mu leen na ne kii tëdd ni inerte yéen ñaar yéen a doon yendu nakk nga ko dundee yow loolu noonu c'était des moments très très très très émouvants parce que ñun lañ doon gunge ay famille si loolu noonu mais ñooñu noonu si ñun lañu bokk bokkoon pour dire vrai mhm. am na si service yi nga xam ne dafa ñu côté surveillant bi jour boobu dañaa ñëw dem cimetière mais cimetière oh macha allah gis na nañu ndaw yi lu ñu dëgër dëgër dëgër dëgër am na li nga xam ne génn si ñoom quoi. Mm-hmm. parce que ki nga xamante ne da nga ko doon côtoyer au quotidien service am bu jàngiwul mu ñëw service. réunion am Sylvain am na ñu si doon jàng. Mm-hmm. Sylvain Alexandre dafa doon jàng. Mm-hmm. Maria ak na ak Nathalie ñoom ñoo jàngale dem si yàlla. Mm-hmm. ñoom ñoo jàngale parce que ñoo ñëw ay majeur la ñu woon mais ay dañ doon liggéey ay mère ñoom ñaan yëpp Nathalie mère de famille la woon kee moom mu ngi doon waayal fondé foyer. Mm-hmm. yàlla jël leen fi. donc dafa neexoon ay moment yi nga xamante ne moment yu diis. yu diis la si diis mais dund nañ ko si suñu foi quoi gëm nañ ci yàlla. ànd nañ ci yàlla kenn di ko coog moom. te tamit jàppale nañ famille yi ñu mën ñu mën a surpasser loolu noonu. di remercier président di remercier bépp membre nga xamante ne def na si loxoom def na si présence am def na si ñaanam loolu noonu dafa nekkoon ay moment yoo xam ne moment yi diis la te di remercier tamit yeneen engagé yi nga xamante ne jotoon nañ ñu soutenir gis nañu message ça venait un peu partout message de soutien yi ak service yi nga xam ne rendre nañ ñu ko au moment bu nga xam ne ñun ñoo amoon naqar boobu noonu di remercier tamit paroissiens yi. ak seen soutien parce que tamit recevoir oon nañu ay soutien euh, côté message côté ñëw si jour enterrement yi mhm, jàppale nañu si bu baax présence bi mhm. c'était des moments forts ñu ngi lay jaajëfal Laurent di wax ne engagé yi daa mel ni mi ngi law dakaar daj na euh, même bu dajul tamit euh, bëri na Mbour door nañu Ziguinchor looy tëjee balaa boobu damay excuser wu parce que présent bëggoon na fi nekk trop mhm. mais par des contraintes moom dafa am décennie. moo taxit ñu ngi koy ñaanal yàlla si lu mu nekk moment difficile yi yàlla jëli yàlla jàppale ko si. le président Jean David di di koy ñaanal yàlla sas bu mu ko jox. ko mu dëgëral ko. di remercier tamit le président fondateur Modou Antoine Mendy ki nga xamante ne def na fi cinq ans au sein du mouvement jàppale na fi ay jàppale na mouvement bi. si bépp côté présence am physique morale am maam indi na fi ay nit formé na fi ay nit. Mhm. ñi koy ñaanal tamit si lu mu nekk yàlla jàppale ko si bu baax. di remercier anciens yi parce que bu dul loolu ñoom tey duñu fi yegg si. lii du am. Mhm. waaw parce que anciens jàpp nañ si bu baax côté récépissé mouvement am na ay kayit. Mhm. anciens jàpp nañ si premier réunion yi ñu tenir kii jàpp si récépissé kii jàpp si logo bi gis nga logo bi sax ni ñu ko defaree. côté kayit bi côté réglement intérieur ce sont les anciens yi nga xam ne ñoom ñoo ko taxawal mouvement bu dëgëree tey nii am rigueur ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo si parce que bu nekkoon laisser aller rek ku nekk ñu bàyyi ko si lu ko neex rek donc yaakaar naa dañu yegg si tey ba ne ay 6 ans ba 7 ans mhm. donc ñoom ñu leen si remercier bu baax képp ki nga xamante ne mu ngi fi woon te temps mayetu la xam nañu sa xel mu ngi fi yàlla na si li nga nekk yàlla jàppal la si mhm. di remercier bépp membre nga xam ne moo nekk fii actif mhm. koo xamante ni ñoom ñoo yeggali sas bi ñoom ñoo gérer héritage bi yàlla tamit ñu leen di ñaanal yàlla mu may leen kattan may leen force lépp li nga xamante ne ancien dañ ko fi bàyyi ñoom ñu yeggalee ko mouvement bi. Mhm. ba seen rakk yi wala seen doom mu mun ko jot. mu nekk relais. mu nekk relais. Mhm. di remercier tamit musulman yi nga xam ne ñu ngi si ñun parce que daan nañu jot ay wax yi nga xamante ne yenn témoignage dañuy ne ah diw léegi chrétien yi lay topp léegi mu tuub. mais par contre wax boobu noonu maanaam première musulman yi fi bokk ñun am nañu ay njit Abbé hmm. Alphonse ñu ngi koy remercier bu baax mooy curé bu fi nekkoon parce que bu première euh, adhésion muy musulman yi dañu dem ba si moom wax ko ne ko ah nan nga gisee musulman boo xam ne day ñëw bokk si saafante chrétien mu ne ah man de même ñun suñu famille am na ay famille miss donc ñoom ñu ñëw jàpp si liggéey bi taxul ñoom ñu tuub taxul ñoom ñu wàcc seen yoon. Mm-hmm. donc moom moo ñu encouragé à telle sorte que musulman bi ñu bokkee tey ba ñu yaatal leen bu ñu ñemee maam moom moo ñu. ba seen famille seen xel dal ba seen famille seen xel dal. parce que dañuy amal ay réunion des parents réunion bi réunion des parents yi musulman dañuy woo seen famille moom moom jaafante na saafante na ak famille dalal leen que ni ñoo ñu noonu si lu ñu nekk nii. wàññiwul dara ci seen ngëm oo cas mm-hmm. contraire da leen di yokkal ay tiyaam mm-hmm. waaw loolu laa di remercier ñëpp. ku leen bëgg a ban numéro lay joxe. lay jaar secrétaire bi Dieudonné Dagoya. ba 77. 880 37 64. 77 880 37 64. c'est le secrétaire général du mouvement. Mhm. Euh, merci beaucoup Laurent. maa ngi di jaajëfal bu baax. ñu ngi lay jaajëfal mhm. seen liggéey bi ngeen di def. Euh, ñu gis nañu euh, seen disponibilité. Mhm. yombal ngeen ñu bu baax. Euh, communication communication bi. di leen ñaanal tamit yàlla yàlla sàmb leen aar leen. di teg euh, remerciement bi seen DG. mu wàccee ko si yéen ñëpp. soxna ñu ngi leen remercier bu baax merci Sonia. Sonia ñu ngi leen remercier bu baax. <laughs> koy jaajëfal bu baax a baax ñun tamit euh, di leen jaajëfal ci ubbi bi ñu ubbil seen buntu ñu daal di dugg waxtaan ak ñoom. ci li nga xam ne rek ñu ngi koy liggéey muy service bu noble bi nga xam ne comme ni nga ko waxee c'est des bénévoles fayeekuwuñu dara ku leen woo téléphone ci numéro boobu di numéro Dieudonné euh, di secrétaire général bi ñu daal di lay wuyu loo soxla ci li nga xam ne rek euh, lu ñu la mën a dimbalee la ñu dimbale leen ci la ci euh, kon nag ñi nga xam ne ñu ngi leen di gis ci tali bi ñuy daw su desee amee su enterment amee nañ ko comprendre noonu activité la boo xam ne ñu ngi koy def euh, muy euh, benn activité benn euh, maanaam service bu noble boo xam ne dañ koy def te amuñu ci dara dañuy jàppale les familles endeuillées kon nag ñu jara encouragé lañu ñu ñu jara félicité la ñu waaye tamit ñu jara dimbale lañu képp koo xam ne am nga loo leen mën a dimbale li ñuy wax rek tu peux apporter ta à l'édifice comme li ñuy wax rek nga ñëw jàppale leen comme niñ ko ni ko mënee manière boo ko mënee rek nga jàppale leen kon nag euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, di ko teg ci euh, loxo Laurent mu jox ko président bi nga xam ne comme ni nga ko waxee léegi dafa am dese ñu koy jaal bu baax a baax mu tasaare ko membre engagé yëpp kon nag ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a doon teewlu sur la 7 TV seen émission 7 voix du cœur comme tous les mardis ni ñu ko tàmm defee rek noonu la ñu ñëwee woon fii tey ci église Saint-Paul ñëw seet si mouvement des jeunes engagé jaajëfal leen bu baax a baax waaye jaajëfal ñi nga xam ne bu woon ñoom liggéey bi du yemb ku ci mel ni Issa Pouy euh, Kébé Ndiouga Ali euh, ku ci mel ni euh, Alioune ci li nga xam ne mooy wàllu logistique bi di jaajëfal waa production ci jàppale beeg lépp di jaajëfal tamit waa montage Lamine Mbengue ak ñi ci ginnaawam yëpp fàttewuñu kenn Papa Sarr merci beaucoup à toi ñu ngi leen di jaajëfal kon yéen ñi doon teewlu amuñu seen pay fi amaani laa jàngeen jëf merci beaucoup